voilà ñu ngi nuyoo euh, di askan bi yëpp di ziar mboolem patriote di wax ne tey ñu ngi ñëw ci jour tudd Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne jigéenu talaatay ndeer moom laa ko mën a tuddee moom mi nga xam ne tey bu patriote yi toogee di damu tey wala ñu toog projet bi di law law yi ba nëgë ni dama naan Ndeye Khady Ndiaye suyee na ci rôle bu am solo mu jigéenu talaatay ndeer yi ci la bokk tey ñu ngi ñëw ci tuddam mu am doom bu góor ñu tudde ko Maître Baldé maître Balde nag eh, di nekk ku baax ku taxawu tamit askan bi heure boo ko fëggee wala nga message ko mu tontu la loolu dama naan yëg-yëg mënu ko passé kon tey bu ko Ibrahima Coulibaly tuddee doom wàcc na am na ñoo xam ne séntu nañ tur bi feneen nag waaye dama eh, gor su bu sañoon ku ko lebal mu fay la ndax maître Balde taxawul na leen sans xaalis taxawul na leen loo xam ne mënuñu sax ñun toog di ko wax waaye tey Ibrahima def na li nga xamante ne mooy taawam bu góor la am di doomam bu góor bi mu njëkk a gis mu tuddee ko Maître Balde loolu dañuy wax ni ndam la di ñaan yàlla suñu borom euh, mu fekkee lépp waaye Ibrahima itam dañ koy ñaanal xam ne Ibrahima Coulibaly nit bu baax la nit bu ñàkk ki ñaan la nit bu bëgg Ndeye Khady Ndiaye la nit bu ñàkk euh, kiñaan ñaan munul paase li mu def tey jii nii munul paase lu gën a rëy lii dañu koy ñaanal ak yàlla suñu boroom bàyyee ko ak sagoom bàyyi ko fi ba doom bi màgg dund bu di ko yóbbu Makka ci kàttanu yàlla di wax ne nag bëggoon nañ tey ngénte li demee neneen lu waaye nag situation bi mu ñu fekk ak maman bi nga xamante ne fekk na ko ci suñu jàmbaar ji daanaan ji ki bëgg réew mi muy Seydina Ousmane Sonko nekk ci ay cas yu difficile waaye kon patriote yëpp dinañ daje tey wax ne Ndeye Khady Ndiaye bor boo leble des na la ko fay ndax dëgg bu ñu passé nga taxaw askan bépp taxaw nga jël dëgg teg ci kanamu ñëpp te bu la neexoon nag nga xoolee neneen wala nga gisee neneen kon Ndeye Khady moom dañ koy ñaanal yàlla suñu borom mu fekk léppi njabootam mu dund dund ba njabootam di ko weer ak a weer mu xam ne nag lebal na askor di gor di ñaanal it Seydina Ousmane Sonko yàlla suñu borom génne ko ci euh, euh, maanaam jafe-jafe yi. teggil ko lépp ñu ngi koy ñaan ci weeru safar wii nii di ko ñaanal yàlla suñu borom euh, musal ko ci pexem noonu ak ay jafe-jafe yu bari ba delloosi ko bakkanam delloosi sagoom ci ñun kontaan nañ bu baax na ndax bu ñu sañoon tey ngénte li dina demee nii waaye yàlla suñu borom daal nii la ko dogale beneen yoon incha allah dinañ ko gën a yaatal ci kàttanu yàlla merci beaucoup macha allah jërëjëf a kàddu yi rafet na